ji ak ngir képp koo xam bu tumuranki ci guddi gi di waxtaanee jàkkaarloo fii ci euh, TFM mu am euh, ku ci yees Fou Malade euh, Malal Talla wala Almaami nu mu la neexee rek moo tax sax yow la ñuy dalal commencé ci yow ci laaj boobu maître Mame Adama Guèye mi teg ci suuf candidature siiwal ko. naka nga ko jàngatee gannaaw boo nuyook askan wi. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ah, di kontaan ci bokk ci ñi nga xamante ne dañu nekk ay chroniqueur ci émission jàkkaarloo yaakaar ne liñ fiy wax dina mën a jëriñ askan wi bu baax a baax et de manière de la manière la plus objective. Mhm. donc parce que yaakaar naa ne bu nit ñi wóoloo denk la une certaine responsabilité. li ci war mooy nga doxal ko ñoom niñ ko bëggee. Mhm. mais doxal ko aussi par rapport ak say ngëm donc loolu laa ñaan yàlla mu dimbale ma si ba mu mën a yeggal li nga xamante ne dénk nañ ma ko fii donc euh, maître Mame Adama Gueye déjà euh, nit la bi nga xamante ne jox naa ko cër trop et yaakaar naa ni bëri na ay sénégalais également yu ko respecté trop ndax régulièrement dafay hmm. génn di wax ci tolluwaayu dëkk bi ci wàllu yoon ci wàllu développement ci affaire yu bëree bëri mais personnellement euh, le fait que mu renoncer à sa candidature bettu ma parce que quand même en termes de candidature aux élections en termes de présence aux élections du nit bi nga xamante ne am na si régularité bëri mës na bokk je pense une seule fois ci ay élections mais li ci des yëpp dafa continuer continuer ay yëngu-yëngoom ci biir société civile également aussi euh, yaakaar naa ni bu baax a baax dañu nekk ci li nga xamante ne Euh, parrainage yi également c' est un test et c' est un mhm. travail de terrain. Mhm. xëy na bi mu demee ba sonde dugg amaat na amaat na gis-gisu téyewaat boppam xam ni aussi effacé wu si jeu bi ba pare li mu wax ni moom moo tax muy dox loolu mooy bëgg na fexe federe l' pour qu'on une opposition forte. loolu yaakaar naa ni démarche bu rafet la parce que démocratie pour mu am si réew élection aussi pour ñu mën a peser il faut qu'on ait une opposition forte qui fait face au pouvoir te yaakaar naa ni démarche boobu baax na donc euh, estimé na ni que moom en terme de parrainage xëy na du mën a am te aussi organiser ko yombul euh, bokk ci élection yombul parce que c'est des moyens donc y a y a tout ça. Mhm. même si nee na dooleel opposition tamit euh, moo gën a tax euh, mu bàyyi candidature alors tir croisé laay def joge fii ñëw ci Mouhamed Papis Diaw mhm. alors Papis. maître mam Adama Gueye bàyyeem bi noo ko gisee. waaw d' abord baax na ñu taxaw tuuti ci ci ci personnage bi. Mhm. parce que je pense que c' est euh, c' est pas un novice en politique. et euh, ce qui important de de rappeler mooy euh, première alternance au Sénégal bi mu amee il faisait partie des gens hein, qui avaient porté le combat pour renverser euh, euh, président Abdou Diouf mu bokkoon sax si ñu doon pressentir ay ministre sous le magistère de de de Ablaye donc c'est un homme comme on l'appelle du sérail même bu fekkee ne c'est pas quelqu'un qui est autour d'un parti mais qui très souvent si liy xew ci dëkk bi. spontanément dafay am très souvent courage wu mhm. euh, joxe son avis que ça soit favorable ou défavorable mhm. mais chaque fois il n'est jamais neutre euh, sur les questions qui ont qui intéressent le Sénégal de mhm. façon globale muy benn courage euh, leneen li moom mooy ñetti jàngat man laa mën a expliquer lan moo tax mu tekki ndombal tànkam ci histoire expérience présidentielle lu ci novice aussi parce que am na ci expérience mus na ko mus na ko def lu ñu ñëwaat xëy na si résultat yi parce que c'est pas très déterminant mhm. par rapport ak euh, échéance bu bees bi mais donc présidentielle xam na ko mhm. dugal na ci def na campagne xam na luy une campagne présidentielle mooy candidature à la présidence de la République du Sénégal donc man ñetti jàngat laa si mën a am benn bi dama koy rejoindre moom bu mu ne dafa bëgg a dooleel mhm. euh, ñi nga xamante ne ñooy manko pour renverser régime bi fi euh, bi fi nekk benn mooy mal brosse na ko léegi Euh, xëy na dafa toog def introspection xool les vraies réalités du terrain ak li nga xamante ni moom moo am par rapport ak ak moom pouvoir am potentiel am est-ce que c'est pas perdre du temps et perdre de l'argent bu renoncer wala deuxième bi nekk intermédiaire entre bi may wax nii ak bi confirmer euh, bi rejoindre sa sa version des faits que day renforcer opposition moom mooy que mu joxe un signal de par cette démarche parce que c'est pas le deuxième sénégalais bu ko def si actuellement lum récemment moom it dafa ne nekkatul euh, candidat il avait des des intentions moo ko njëkk annoncé xëy na defawul benn toole noonu par rapport ak bon xëy na sa trajectoire politique wala soon mhm. histoire politique Loum qui est plus technocrate que que bon mu ñëw si mettre Mame Adama Gueye mu nekk benn sa <coughs> attirer les attentions moi j'estime que xëy na mhm. euh, troisième euh, possibilité bi mooy mun na nekk dafa joxe une leçon à tous ces gens qui veulent voilà, qui ont les ambitions, wala qui veulent se lancer dans la bataille, que d'où qui, ne, qui veut ne peut pas systématiquement. Mm -hmm. Tu peux vouloir et ne pas pouvoir le faire. Mhm. Parce que, amolo carrière, bi, amolo expérience, bi, amolo bankas, yi tak au, pouvoir. Par contre, nous associé à l'élan dynamique, mm -hmm. hein, euh, bon, xamantene, dina mëna renverser, wala joxe objectif moy, et objectif ben la, wala nyar la, selon qu'on soit dans un camp ou, dans, un autre. euh, régime en place avec son candidat le président Macky Sall conserve le pouvoir wala ñële avec leur artifice yu renverser le pouvoir. voilà Birima gannaaw bu ñu le nuyoo. Papis euh, maa ngi leen di maa ngi leen di nuyu ñi fi nekk ñëpp. jox ci plateau bi xam da Maral mooy remplacé xam nga ne da ngeen a ëpp da a bañ Macky Sall yéen a jàpp ci plateau bi. <laughs> Ah, daf maa jaaxal bu ngeen kuy remplacé sax opposant ngeen di contre Macky Sall non attends nga fii la contre Macky Sall samp baaxam camp militaire la fekkee je vous attends à côté. loolu après ko leer leeral. léegi <laughs> non da ngeen a garaaw yëpp boobu koy def mais. Euh, non jàngatee. ma ma ziar aussi nit ñi ci màggal tubaab yi di ñëw di leen wax ni xam ngeen sansan dafa fekk ne mu nekk safar ndax safar dama ciy neex deret mm. du ma naq ndax sëñ Tuubaa fees sama xol ba boo am mbégee sax damay reetaan donc moo tax euh, du ma mer damay bég maa ngi maa ngi ndokkeel ñi sant Mbàkke ñi seen maam liggéey sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa gërëm leen ñëpp maa leen di ndokkeel ci disu safar bi mm. di ndokkeel jullitu Sénégal yëpp man gëm naa ne disu safar ci la Sénégal moom boppam quatre am dañ ko négocier ay naxante la woon mais bis bi nit ku ñuul taxawee ne non tubaab bi am gàcce mu dëdd dëdd baaraam rëdd ba def fa ba bis bi sëñ tubaab jàkkaarloo tubaab yi am dëgg beneen bis du indépendance Sénégal bis boobu mooy indépendance Sénégal donc loolu ci lañ moom suñu boppit nag moo tax euh, bis bu màgg la ci man bis bu may bu may bu may ndokkeel jullit Sénégal yi di comme ndokkeel murit yëpp di ñaan yàlla ñëpp yàlla ñu màggaleeg jàmm dem ak jàmm dikk ak jàmm Sëriñ tubaab mi tax ñëpp jóg sant yàlla tax ñëpp jóg yàlla mi am pay na fay ñëpp ci barke sëñ Tuubaa xam nga sëñ bi politiciens gën ñoo yeewu nit ñi maama da wëgey daa mënu am ay parrainage yi ngeen di wër yëpp amul nit def na élection fii amul sax lan la woon amul nit mënul def parrainage bu parrainage amul mu nekkaan daa mënu ko xanaa xam ne rajo yi ñoo yàq réew mi ñi bañ Macky Sall di tal tal amuñu ñett amuñu un pour cent wax dafa yomb ñu jox la micro rek ngay wax rek damay dajale fédéral dañu ne pour daal Macky Sall daal Macky Sall wax ko yomb na mais jëf ko yombul. xam nga man sax nangu naa ci courage am ci la loolu a ngi soo xam ne parrainage am sole xoolal tey candidat yoo xam ba naaj yu tàng nga taxaw loo ko di ko jëloo carte yoo xam ne bu ngoon jotee zéro zéro zéro zéro ngay dégg dañ jëlee candidat yoo xam ne am nañ potentiel wa am nañ possibilité mën na gagné réew mi mais ñu xëccoo réew te élection réew du caaxaan Sénégal du caaxaana ah. ku yaakaar ñu fooy suñu réew ñu fooy ñu ko de njiitu réew du caaxaan ba tax na du ko nekk ku jóg leen da koo bëgg. maam Adama Gueye nee day fédéral opposition na fédéral rek opposition bu ko neex mais xam naa daal li tax mu bàyyi du fédéral opposition daa amul am partenariat. ok eh, ça la vérité prouvé prouvement le contraire ñu defee élection ñaata voix ak ñaata lañ laaj ci parrainage bi defal defal la différence des voix yu am élection présidentielle yu génn. ak ñaata voix la laaj ci parrainage bi. kon yow c'est jàpp nga ni parrainage bi moo ko parrainage moo alors ñu dem ci gan bi euh, Bassirou fay Bassirou Diomaye fay yaa ngi bokk parti les patriotes waaye am nga gis-gis ci euh, lii nga xam ni maître Mame Adama Gueye euh, def na ko bàyyi bi ni nga wax ñu ngi koy jàngatee nu bëri ñenn jàpp ni parenage ci la bokk. jërëjëf Der. maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu sénégalais ñuy seetaan yëpp di ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi waajal magal Touba yàlla def leen ñu fekkee ko ci jàmm ak tal dem magali ji ko ñëwaat ci jàmm te yàlla sàmm leen ci yoon wi euh, maître Mame Adama Gueye am nu lu mu expliqué lu mu wax ne moom moo tax mu bàyyi mhm. dam ko koy nangul euh, ndax nañ xool trajectoire am moom fu mu jaar bu ñu fàtte ne transparence fii ci dëkk bi ci réew mi mhm. am na ñoo xamante ne xar nañ seen tànk tubéy bu mhm. yàgg yàgg yàgg ko xeex dëgg la notamment ci forum civil te foog naa ne moom ci la bokk mhm. bu ñu demee ba ñu samp ko moom ak ñoom euh, Mbodj yàlla na ko yàlla yërëm ci la bàyyi forum civil dem nekkaat ci affaire am ak yeneen plateforme yi ñu nekkoon yoo xamante ne alternative citoyenne yàgg na ko xeex. dëgg la kon jàpp naa ne nit ku am crédibilité la pour bu ñu jógee tey pour fédérer opposition ku war a mën a dox loolu la. woo na leen waxtaan na ak yéen ci fédérer opposition boobu. foog naa ne nu mu waxee ñëpp la woo ndax bu nee dinañ dem seeti ku ne loolu déjà exclurul kenn. Mhm. te dafa amoon solo opposition bi am nay candidature yu crédible yu bëri ay nit ñoo xamante ne bu ñu jógee tey laaj réew mi lu ñu leen mën a nangul la. mais xëy na ni nit ñi war a booloo pour gën a dooleel seen bopp loolu xëy na moo xawoon manqué ci biir mhm. opposition bi maanaam ay pole de candidature crédible te loolu jàpp naa ne moom ku ku ku yelloo na. Mhm. dox tànk yooyu war ci am ndam. jërëjëf alors buuba mun nañ ne maître Mame Adama Gueye victime du parrainage wala. waaw der euh, nga kii ma rek ma ma teeru biir parce que namoon nañ ko fii quand euh, di aussi <clears throat> dalal. Euh, malal mm-hmm. euh, di ko dalal euh, parce que tout simplement euh, mën nañu bañ a d'accord tout le temps ci ay ci ay position mm-hmm. mais nit bu ñu respecté la may delluwaat ma rek di ko wax que ni am na way bu Youssou Ndour wax ne boo lekkee ba suur da ngay gërëm ñu nekk ci wàññi mm-hmm. damay fàttaliku tout le temps ces jeunes là qu'on a attrapé sur la place de l'obélisque dóor leen tëj leen ñuy xeex <coughs> jàkkaarlook président Abdoulaye Wade ci lañ bokkoon donc euh, donc euh, moom <clears throat> dañ ko fi woo dañ ko fi woo comme nit bu ñu yaakaar ni taxawaayam personnel am na solo xelam am na solo on sera pas toujours d'accord peut-être que benn jour naa jàppanteeg moom dina jàppanteeg Birima mais du dindi dara ci li nga xam ni moom mooy respect bi ñu am ci taxawaay bi mu taxaw nekk jeune ñëpp respecte ko je pense que loolu c' est important donc ñu ngi lay dal Birima nag xam nga ni noo def mu mu mu fii la. waaw ah, mais mais voilà <laughs> ba pare ba pare ñoom ñaar ñëpp dañu fanseen ku nekk dafa fansé borom donc amul problème <laughs> pour pour revenir à. Ah, ci maître Mame Adama Gueye ah maître Adama Gueye xam nga man je pense que aussi ngay dem ci dara nga sentir que ni amuloo doole dem ci il faut être honnête de dire que peut-être j'ai pas peut-être les moyens de rassembler toutes ces signatures là pour mën a. jàll loolu aussi benn benn paal beneen bi nga xam ni mooy approche bi mooy fédérer l'opposition euh, man li ma ciy tiital moom mooy dans l'opposition il y des anciens des anciens régimes ñu fi nekkoon mhm. ñu xeex ak ñoom am na ñu bees man duma ma d'accord ma ci fédérer opposition rek pour fédérer opposition nit ñi dañu war a bokk xalaat parce que du benn camp contre beneen c'est pas le pouvoir contre l'opposition ci biir opposition bi il faut ñu d'accord il faut ñu honnête xam ne am na lu fa baax am na lu fa bon am na ñu fa wóolu am na ñu fa wóoluwul te loolu dafa am solo donc boo jogee nga ne damay fédérer opposition pour mu jàkkaarloo pouvoir pour man c'est pas objectif honnêtement je pense que dañu war a te loolu moo ñuy dugal ci tooxi duna daaneel rek pour daaneel daaneel lu ñu régime rek pour daaneel régime wala fal régime pour fal régime pour man conviction yi bu ñu àndul vision yi bu ñu àndul ça ne à rien de de rassembler ñëpp parce que opposition nga nekk rek dama leen di rassembler donc je pense que bu ñuy bu ñuy booloo nañ leen booloo ci ay conviction ak ak ak ak vision mm. mais pas parce que booloo ci ci ci position bu ñu nekk mooy nekkuñu ci pouvoir ñun ñëpp lañu boole daaneel pouvoir bi et ñi nga xam ne dañuy booloo parce que d'habitude ñiy booloo te ànduñu am bokkuñu conviction parce que fii itam bu kenn nax kenn ku ànd ak yow xeex ba pouvoir daanu day bëgg a jël paaram ci gàttal ngeen dem ba ci biir fekk bokku leen vision clash am mu nekk ci opposition c'est un éternel recommencement donc nous bugg ñun Sénégalais yi bugguñu ay nit yu booloo rek pour daaneel dañu bugg ay nit yu booloo ci ànd xalaat ak xel yoo xam ne méngoo nañu pour pour avancer. loolu merci beaucoup Bouba ñu dem ci euh, Charles pour euh, terminer choc de la <coughs> semaine premier tour de table bi. waaw waaw di dalal suma suma rakk parce que kii suma rakk la. on peut du ma ñëwaat si dox boo xamante ne du tey yàgg la bienvenue you welcome comme on dit. Euh, xam nga der terrain politique réalité politique du dara lu dul da ngay sa bopp. Mhm. xam ko yow yaay kan lu nga doon looy peser. Mhm. je pense que tey bu ñu xoolee bu ñu demee ba si lu euh, indi parrainage ku si nekk dafa am loo xamante ne géew ga nee na di nga fa dëgg. Mhm. si làmb politique ba pour bëre day fekk d'abord nga mën a lu ñu koy waxee réunir les soixante sept mille mooy maanaam entre zéro virgule huit mhm. ak un pour cent de cinquante sept mille défendants cinquante cinq mille à soixante sept mille signatures pour nu mën a bokk je pense que boo buggee dimbali askan wi bëgg gëm parce que dafa la koy jaral annoncer une candidature lu yombal mhm. liggéeyal Sénégal liggéey dafa laaj terrain dafa laaj aussi nga dépenser dafa laaj nga am jotu sénégalais yi le meilleur service que tu peux à l'opposition mooy dem am sa 67 000 signatures yi c'est le meilleur service s'il y a 10 qui le font c'est 600 et quelques mille s'il y en a 20 qui le font c'est 1 million et quelques le président ne gagne pas c'est aussi simple que ça je am na ay galgal yu mu rof gars yi mooy <coughs> sénégalais munoo fal kenn munoo pare ne kenn rek munoo pare ne ñaari nit kenn rek nga mën a fal kooku mooy le premier galgal nit ñi dañu raté wax ja deuxième parrainage ba deuxième deuxième kii galgal ga mhm. mooy que fu ñu ko yóbbu dafa diis je pense que le parrainage aujourd'hui bien entendu ça devient une colle pour tout le monde à part parti yoo xamante ne am nañu histoire yàgg nañ fii wala sénégalais am ku mu gis mu doy ko parce que xam nga c'est quoi la réalité de ce pays on n'analyse pas souvent maanaam mais lan mooy dugg ci biir kër yi télévision moo fay dugg. Mhm. rajo ak télé. journaux yi c'est compliqué balaa mu dem Tambacounda moom. il faut mhm. nga xaar le lendemain ak. téléphone yi léegi. téléphone yi sax euh, quelle est la euh, probabilité tey pour nga tu me diras aujourd'hui sur les smartphones avec les réseaux sociaux. Mhm. mais ça écoute. tu vas te limiter très tôt parce que da nga am benn de 4 millions de personnes mais ce sont les mêmes personnes qui cliquent. Mm-hmm. à la fin de journée tu as millions de personnes c'est pas 4 millions de Sénégalais. c'est 4 millions de clics. donc ça veut dire que aujourd'hui nos hommes politiques il va falloir a baax a mm-hmm. baax a baax qu'est-ce qu'il pèse au Sénégal il y a comme dit Birima et je suis d'accord avec moom namoon naa trop fu ngay mais dafa am fu quand on va arriver maintenant nag si càppanlaw ga mooy maanaam da nga war a mesurer sa bopp 67000 je pense que tey képp koo xamante ne nee na xool nga sénégalais yi kenn euh, maanaam kenn saxul la bombo mm-hmm. nga ne man dama leen bëgg je veux être le président de la république war nga mën a dem outil les 67000 voix mm-hmm. pour dem briguer maintenant aussi euh, Bouba am na lu mu wax c'est que si tu t'en rends compte que c'est euh, c'est pas possible tu t'arrêtes mais le grand problème de ce pays là. daaneelal foofu. ay waaw grand problème de ce pays mooy ces coalitions là. Mhm. moo ñu tardel. coalition yi moo ñu tardel moo ñu tardel. léegi dinañ ci parce que combine mais mais coalition voilà mhm. moo ñu tardel mais mais mais il faut accepter que coalition nag euh, Charles dafa nekk une tendance mondiale. c'est que li amatul dans aucun pays au monde dafa coaliser ak kan. non non non euh, non. non le système. su ngeen talawul ànd ak kii ngeen rey pour que coalition moo non non ngeen fustiger fii ne. mais waxal euh, kenn non sinon pas non waxal non ngeen taxaw fii ne APS ànd ak Macky Sall. non tey ngeen coalition wala réew. Euh, waxuñu loolu man waxuma dama ne. Ah, dama ne la nouvelle tendance. non li ma bëgg a préciser mooy. la nouvelle tendance mondiale. waaw mooy à chaque fois bu amee consultation électorale dans tous les pays. waaw c' est des coalitions qui y vont. li tax nga wax coalition Benno Bokk Yaakaar. c' est pas lié. moi je yow ñaata nga fi fustiger la coalition Benno Bokk Yaakaar. après victoire la waaw après non non après non et puis dafa nuance après victoire bi. c' est par rapport non non moi j' ai dit non. c' est par rapport aux ambitions bi ma s' il te plaît. bàyyi ma terminer. coalition bañu ma ko dama ne. mais je ne peux pas

der Birima dafay def amal gàmm dama ne waxuñu on est contre les coalitions la ñu ne man li ma wax moom lay réitérer et c'est l'avis de beaucoup de gens ici autour de ce plateau ne bu ñu paree élection yu yéen xam mais tere ay ñu am ambition présidentielle loolu moo yénewul maanaam loolu la ñu wax non non c'est ça alors, le problème mais alors, pas coalition Charles Charles pour réclamer nga bañ coalition Benno Bokk Yaakaar di ko on revient à Birima j'ai parlé des ambitions présidentielles j'ai jamais dit ça Birima nga ni ñooñu tardel lu tax xam nga der dëgg foog ñu koy wax quoi il faut qu'on arrête de de jouer tu pèses quoi avant maanaam validation du conseil constitutionnel kan la ko hmm. la. tu pèses quoi kenn xamu ko. dëgg la nga bëgg a ñëw ne damay bokk si benn mouvement. parti yóbbaale ma non dama ne tey dama ne sénégalais war na ma jar je demande à je demande à briguer la la présidence de ce pays. effectivement waral na ma jar man ma investir lu may investir dem uti 67000 mu wóor na ma ko au moins. bu ma amul plus ma am ratio sur les 67000. après mais ne ñëpp ñëw di kii parce que xam nga der on connaît tous comment marche mm-hmm. ici ce pays et j'ai beaucoup de respect pour maître Mame Adama par il y a 98 demandes euh, question bi ñuy dugg mooy thème bu njëkk bi dinañu permettre ñu waxtaan tuuti ci coalition ndax ci tontu yi nga xam ni euh, li waral thème bi am na réponse boo xam ni Ousmane Sonko indi na ko bokk na ci euh, ne dina gisee ak maître Abdoulaye Wade on parle déjà de coalition seen diggante donc préoccupation bi dina dellu siwaat foofu la ñuy jaaree Bassirou Diomaye fay ñu dellu nuyuwaat la fàttali ne yaay coordonnateur cadre mouvement des cadre euh, patriotes semaine bi dafa am coow lu lëmbe réew mi tukkee ci Ousmane Sonko vidéo ba ak euh, nañ ko xaatime après siiwal ko yàgg na yàggul dañ ci jàpp ni am na kàddu yoo xam ni saf na safaanoo na tegginuwul jëm ci ñi fi jiite woon réew mi ak ki fi nekk maanaam euh, dellu ne euh, ñooñu rey leen dagan na bu dee ci tënk ak ni ma ko mën a waxee loolu la loolu la wax ñëpp jàppoon ne ba mu wootee conférence de presse presse xëy na day dellu ci kàddu yi waaye daf ko dëggal je ne je réitère mes propos ci yenn yu ma jot a ci presse bi alors que ñu bëri ci seen xam-xam màcc ci wàllu politique ak communication jàppoon nañ ni dafa waroon a dellu ci baat yooyu moo xam day jéggalu wala ne regretté na ko mais gis nañ ni daal dëggal na ko ñeneen jàpp sax ni tontu gi mu indi tamit euh, pour jéem a déplacer débat bi la naan danaa dem seeti Ablaye Wade ni ñuy wax euh, ci tubaab allumer un contre-feu maanaam la def yéen ci seen gis-gis te nga toogal ko fi tey ndax kàddu yooyu même bu dee 2017 la woon mars kàddu yoo xam ni war na génne ci làmmiñu kuy euh, bëgg jiite réew mi la. xam nga der euh, wax te yaakaar naa ne plateau bi expérimenté na ko fii ci wax bi fi mos a am. muy ban. fàttali ko. muy euh, apologie du viole buñ jiiñoon kenn ci seen chroniqueur yi ci wax ju mu waxoon fii. Mm-hmm. foog naa ne delluwaat na nu ne mu jaaree fa pour expliquer li nekkoon ci xolam. Mm-hmm. lu wóotale nit ñi dégg. Mm-hmm. muy benn. Euh, ni ko président Ousmane ko waxee ci RFM dafa ne yenn saay nga dégg nit kuy wax ak moroomam. ci kaf sax ba ne ko yàlla na nga dee fekk ne kooku muy wax loolu kooku amul kenn ku ko ku ko gën a bëgg parce que li muy wax noonu du loo xamante ni dañ koy tibee ci xol vidéo bi ku ko déglu dëgg dëgg lu mu utiliser foofu métaphore la maanaam waxin la automatiquement après dafa ne ngeen jéggal ma ci kàddu gi xam nga bu nekkoon ne kuy wax ci loo xamante ne yéene la kon du ci teg automatiquement ngeen jéegal ma ci kàddu gi loolu mooy métaphore métaphore nag segem ku koy wax du ci yéene la ko waxe wala dafa mer waxe ko noonu am naa njortu gu rafet ne liñ ciy jéegul dafa amul loolu benn la bi ci tegu mooy dafa am contexte boo xamante ne toujours boo bëggee jël wax da koy delluwaat ci contexte te nu mu ko assumer noonu ci utiliser métaphore pour insisté ci loo xamante ne yàgg na ci réew mi loolu noonu objectif de communication bi mu ci amoon moom la doon recherche te am na ko ci hmm. maanaam fexe ba askan wi xippi xool li ñuy jot a def boobu ba léegi nga xamante ne ñu ngi yore réew mi gravité bi ak conséquences yu mu am ci jeunes yi ci femmes yi ak ci population de façon globale. Mm-hmm. parce que bu demee tey ba suñuy ndaw di jël gaal di dem di dee ci géej gi par milliers te mu am fii boo duggee ci ay koñ yu bëri mën nañu la wax diw diw diw diw ci mbokk mi la deewee. Mm-hmm. toog nañ fii ba seetaan Libye ñu fay jaay ay doomu Sénégal ak yu mel noonu ak ay jigéen yoo xamante ne mauvaise politique yi ñu appliqué boobu ba léegi moo tax ñëpp ci bu ñuy wax seen la ñàkk seen bakkan exemple yu mel noonu mën nañ ko démultiplier donc léegi pour insister ci gravité situation boobu moo waral utilisation métaphore boobu. objectif de communication la woon kon. ci ni xam nga métaphore saa yoo koy utiliser maanaam saa déggee nit mooy ne ci waxin am na loo xamante ne xëy na bu ko waxoon ci wax. Mhm. du am déggin boo xamante ne moom la yaakaar ci waxin. alors Charles fay objectif de communication. yow euh, ci ci loolu ngay yëngu. ndax lu xel mën nangu la. non mënul mënuñu wax loolu. wax bi buñ koy wax du ren. Mhm. mars 2017 daaw la woon nous sommes en 2018. dafa am loo xamante ne dafa nekk léegi suñu dëkk mooy exhumation on aime aller fouiller indi la loo xamante ne daaw la am wala il y deux ans. c'est une presse à sensation. bu mu koy wax il y a deux ans. Mhm. c'était pas pour dire que dans deux ans. ou dans un an je vais atteindre cet objectif de communication c'est une question de contexte. la mhm. vérité dañ koy wax dafa am fu mu ko wax. Mhm. ñu indi ko tey. mu def tollé bu rëy ñun ñu ko si nekk di wax et je suis d'accord avec vous que bu muy wax wax bi parce que man déglu naa ko am na fu mu ne ngeen jéggal ma wax na ko que ça soit une métaphore ou que ça ne soit pas une métaphore c'est pas ça pour moi le vrai problème mm-hmm. le vrai problème et mm-hmm. je l'assume parce que wax naa ko si chronique est-ce que peut-on laisser les gens prendre xaalisu askan wi xaalisu hôpitaux yi santé ba xaalisu fu nekk infrastructure yi di ci tabax seen kër di si am seen gàngoor di si takk seen jabar di fa dund te moo am nu siy dee si loolu c'est inacceptable maintenant dire que c'est une métaphore dire que c'était une une communication de 2017 pour qu'aujourd'hui ñu am yii euh, yii impact mm. ça ce n'est pas vrai ça je suis désolé mais je ne peux pas l'accepter Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas avoir dit quelque chose en et dire que c'était le but recherché pour octobre 2018. C'est pas le but pour octobre C'était le but ci biñ koy wax. Mais c'était l'année dernière. Mais loolu laay wax c'est-à-dire ci l'année dernière bu ñuy wax loolu noonu c'était pour insister ci li mu wax nii. Mhm. xam nga d'accord na ak ñun. oui ci ni ñu doon diagnostiquer situation bi taxoon ñuy wax. effectivement. c'est le langage qui sied. Mhm. alors fu malade malal taala almaam man nag xaw ma naka la war di nee na nee na almaam yi la bëgg dégg fii allez almaam yi li intéressant ci ci wax bi mooy quand même ce attend de Sonko c'est quelqu'un qui doit nit bu li Sénégalais yëpp di xaar si moom ak li nit ñi jot a gis ci moom mooy nit la buy assumer et assumer c'est très important dañ ko soxla parce que nous avons besoin de nouveaux types de leaders c'est important on doit rompre d'avec une certaine manière de parler d'avec une certaine sorte de masla dañ ko war a dañ ci war a génn mhm. benn xeetu masla bi nee na dañuy exhumer exposer di nit ñi wax loolu kenn mënu ko tere li tax kenn mënu ko tere yi parce que aussi on est sur le terrain politique mhm. Mhm. chacun cherche à écraser son adversaire loolu ci jeu politique bi la bokk boo duggee ci jeu politique bi également da nga koy accepter mm-hmm. man su ma xamee ni que Sonko mu ngi jël mu ngi am doole j'essaie aussi de l'étouffer parce que je cherche des voies c'est important beneen affaire bi ci topp mooy jàpp naa ni li mu wax grawul parce que le comportement de ceux qui nous ont dirigés sous Wade sous Diouf ils ont eu des comportements yi nga xamante ne anti-républicains. Mm. Ils ont dilapidé le contribuable sénégalais. Mm. Ils en ont fait n'importe quoi. Mm. ay ministre yu seen doom am seen compte bancaire un milliard pendant ce temps les jeunes prennent les pirogues loolu moo gën a grave une fusillade parce que eux ils ont procédé à une fusillade collective mais qui il a ciblé par une métaphore deux à trois personnes et par rapport à des responsabilités républicaines yu ñu leen dénk moomeelu askan wi ñu dénk la ko. pendant 40 ans nit ñi mënuñu am autoroute. pendant 12 ans euh, ay je sais pas nit ñi mënuñu leen jox électricité bu doy. c'est indécent comme comportement. <coughs> alors Birima ndax yow mun nga jàpp nii li ñu wax. <coughs> waaw man léebu léebu la wala waxin ci wolof jàkkaarloog Sénégal yi ñu teg ma écran teg leen ma vidéo man li ma wax dama ne. <laughs> su continuer man su continuer nii damay bàyyi jàkkaarloo parce chronique yi ñuy wax moom ça devient très grave parce que taxaw nangu naa nit ku nekk da ngay juum moom ni damay juum tegal nañ ma fi vidéo boo xam ne quatre ans laa ko xama trois ans ñu teg ko réew mi yëngu ñu saaga ma ñu demande sax sama départ ci jàkkaarloo te contexte ma woon wax bokkul ak ko bi dama jël pour télé déggul Sénégalais yi parce mm. que wax ji génn laa wax nit bu waxee loo wax boo bokkee say nit ay réew wax loo wóorul wax nga mun ko génne bu doon fi kër def na lu ñaaw def na lu baaxul wax ji génn na nga demander pardon aux Sénégalais yi ça c'est obligatoire man bi ma génne leen vidéo ba ma koy wax ci grève laa ko doon waxee ñu dóor travail dee na wala deewul ma tiit wax ko mais comme wax vidéo bi génn te wax ju mel dama tegaat ci vidéo jàkkaarloo waru ngeen wax ji ne maa ngi jéglu ñëpp nañ ko ñëpp baal wóoru ma koo wax loolu mu immunité apologie bi ngay wax bi ñu ko jiñee ki ñu ko jiñ dafa taal taal télévision jàkkaaru réew mi ne lii ñu wax lii toog bëgg mu wax lii laa doon wax lii wax mais nag comme lii génn na baal leen ma am na humilité def loolu te ñun amuñu prétention jiite réew mi waxuma la Sonko mi dama leen jiite réew du dul ndaw sëñ bi da ngeen ay xale nekk ay jeunes cadres yaakaar ne xam ngeen àdduna xamu leen dara il faut ngeen tey ku bëgg a jiite réew du caaxaan bu daan wax bi dafa njëkk ci wax boobu lan ngeen njëkk a def Ahmed xalifa Niass dafa wax fii ci réew mi ne bëgguñ fi candidat DEJ Sonko génn traité ko tous les noms d'oiseaux te ñun suñu réew xam nga ñu tàmm fii ku fi ne kilifa diine yàgg na fi tooñ nit mais dañoo dañoo wormaal même rek. dañoo wormaal waaw mais bu dee tuuma boo xam ne. tamit moom jàpp na oui jàpp na loo xam ne kéemul ni ñaa ma tànn. lu kéemul dund ci réew mi. mooy réew mooy doxee noo xam ni. ñu dañuy wormaal suñu kilifa diine yi. oui kan mooy kilifa diine. ma ma la ma la. mais kan kan mooy xalifa Niass. ah ah ok kilifa diine la. oui ah ok. doomu wàllu doomu nit ku baax la kilifa diine am ay taalibeem. am ñu ko gëm. te xaj ñi ko gëm fi mu bëgg ñi ko gëm ñàkk ko gëm amat xalifa Niass te bëgg Sonko ànd ak Sonko nar a Sonko mën na hmm. am na ñu gëm amat xalifa Niass mooy seen sëriñ ba pare bëgg a watal Sonko. Hmm. buñ déggee kàddu googu na leen blessé. boo waree jiite réew da ngay muñ lu bari da ngay taxawlu lu bari du ku la ne benn nga dóor ko teg ci ndax réew na ko ci ku mun muñ mën a ko yor ndax réew ku jiite président daa bari doole kon yow mënoo jàpp daal ni mu wax objectif de communication non dama ne non mën nañ ko xam nga man na ci wax la may jéggalu dem na États-Unis d'Amérique ne ñu génne Donald Trump loo Trump loo xam ne mat na 10 ans ou 15 ans ku jiite réew ñu fuye ci yow ku bëgg jiite réew ñu fuye ci yow c'est dans l'ordre normal des choses partout dans le monde boo tax ba nga toogee sa kër di lekk soxla woo kenn kenn faadawu la mais boo jógee da ngay jiite réew nag gars yi fuye sa démb ak sa tey loolu c'est dans l'ordre normal des choses alors par exemple ñu ñu jeexaat Sonko génne dara. nga daanee loolu c'est dans l'ordre normal des choses parce que moo jóg dafa jiite Sénégalais yi quand même. ok comprendre nañ la mais nag li ma bëgg mooy bu nee dara amu fi woon. Hmm. mais école bi nga jàngee yow président Sénégalais ñoo ko defar. université bi nga jàng président Sénégal yi ñoo ko defar xam-xam bi nga am ci réew mi nga ko jàng ba nekk inspecteur non ENA kan moo fi indi donc lépp ku jiite réew ak koo mën di doon di nga def lu baax di nga def lu d'accord di nga def lu d'accord. dans le fond du discours mais taxaw ne taxaw ne. Mhm. de 1960 ba tey ñi jiite Sénégal dañoo war a fusé ngeen di wax jooju wax ju rëy la ah. Mm. non wax ju rëy la c'est grave pour ku jiite ku war a jiite Sénégal. c'est très dinañ dellu si na loolu mun leen ko tuutal. maintenant maintenant li tax mu wax ko. li tax mu wax ko ñu wax yëpp. Charles ñu wax mënu mënu mën a déglu. parce que l'intéressé mu waxee. waxul li ngeen wax moom. Mm. bon attends mbir yi. l'intéressé waxul loolu mais léegi yow dégg nañ li nga wax léegi wuy ma. Mm-hmm. Papis. Mm-hmm. alors <laughs> <laughs> Birima n'est pas du tout d'accord avec. l'explication qu'on donne en tout cas l'histoire là il faut que. ñu indi ci kàddu Sonko yi il faut il ñu xool ko de façon très froide. pas nga bañ a faral fo Sonko. wala nga wala nga contre ko. il faut partir déjà d'un constat boo xamante ni loolu ça fait un consensus. Euh, Sonko dafa ubbi benn penalty pour ses adversaires pour pour deux raisons avant may ñëw fi là où je suis de Sonko pas sur sa benn bi mooy dafa taxaw njëkk nañ ko euh, euh, aggraver l'histoire du salafisme. Mm-hmm. ça n'a pas prospéré. moi je crois que là c'est la seconde brèche qui s'est ouverte. et dans laquelle ils se sont engouffrés pour téye ko métaphore bi euh, sa waay junju ça peut se comprendre. Bassirou fay Bassirou Faye Diomaye Faye. parce que xam nga lan moo koy justifier pourquoi daaw c'était pas grave. mu grave ren mu grave. Mhm. il y problème c'est parce que c'est Sonko il y a il s'est passé des choses. muy benn deuxièmement exemple bi mu jël boobu man je l'ai moi je personnellement sans dégg moom mu joxe sa version mooy naa la xool ne yow yàlla na nga dee. Mmh. ça peut se c' est dans notre jargon nous sénégalais. ça mmh. peut se comprendre mais man donc damay jógee ci cadre boobu ma la c' est une bataille politique. Mmh. c' est une brèche politique boo xamante ne ñun duñ koo fàtt ils vont s'engouffrer dedans jusqu'au bout et c' est de bon guerre par contre man laa où je li Malal waxoon sànq am na lu ñuy xaar si Sonko c' est boo xoolee trajectoire bi nu mu commencé au niveau de la fonction publique fu mu jaaree ba fu mu yegg fii qui ont salué son courage bi ñuy mhm. dénoncé yenn yi à mhm. l'Assemblée sur l'histoire des des des mhm. des des des impôts des députés man je faisais partie des gens qui disaient que c'est extrêmement grave autant on peut être d'accord avec lui autant on peut s'arrêter pour se poser des questions qui est la suivante je peux pas comprendre par exemple que Sonko il y a quelques jours mu taxaw théoriser sur ce que ce qu'il a lui-même appelé le, le système, le système. colporté ou parmi lesquels le président Abdoulaye Wade qui a exercé le pouvoir pendant douze ans système boo xamante ne il convoque les Sénégalais à en faire une rupture mm -hmm. s'en débarrasser mais totalement mais au bout de quelques jours que tu reviennes dire quelqu'un qui est le promoteur de ce système que tu sois dans des phases pour être avec lui il y a problème alors Papis kooku deuxième il y a je veux juste citer euh, autant tu peux comprendre qu'il théorise sur le système. loolu loolu oui oui mais ah. loolu moom mooy deuxième interpellation boo xam ne dina ci wax oui c' est intéressant ce qu'il dit mais Bassirou Faye dinañu ci tontu bax parce que junj naa ko bi may teg problématique bi polémique oui mais ñu bëri. li ma la wax on analysé comme disant que loolu daf ko évoqué. pour allumer un contre-feu daaneel comme ça ñu mën dellu. ci moom autant il peut théoriser sur le système que les gens ont compris moi j'avais compris. j'avais mm-hmm. pensé comprendre quand il dénonçait le système mooy problématique beeg. tout ce qui se passe autour du système. Mais je ne comprends plus quand il veut collaborer avec quelqu'un qui a été un promoteur entre guillemets de ce de ce de ce la la nouveauté de Sonko pour man objectivement c'est sa jeunesse par rapport aux autres leaders. Mm-hmm. mais c'est exactement la même chose que les gens font c'est-à-dire boo ko transposer ci benn mooy que tu peux légaliser à son niveau la transhumance ce que tu renies aujourd'hui demain ouais, tu es en phase avec lui c'est une contradiction man c'est là où je suis déçu mais pas que je sais que Sonko du jël pistolet du rey par Abdoulaye Wade il le fera jamais pour mm-hmm. man c'est mm-hmm. une possibilité une faille politique boo xam ne gars yi jël nañu ko mais là où moi je suis déçu mooy système boobu mu théorisé ba alors booba après il bi Charles avant may ñëw ci yow ak delluwaat ci fay parce que a été interpellé ndax ni ñuy wax apparemment c'était pour régler un problème en évoquant l'axe Wade Sonko mais finalement ça devient un problème pour Papis Diaw qui di que lu mu weddi woon euh, démb moom la nangu nangu tey buuba polémique bi jaroon na ko wala jaru ko waaw euh, avant may wax il faut ma waxaat sama waa ji Birima ko wax que ni euh, je pense que ñun ñu fi toog ñëpp ku nekk sa aqulaay taalaa rek ngay waxee donc kenn ku nekk rek sa position na nga ko na ko yore bañ ko globaliser. ah Tenka Baye ah, non non non mu wax ni dañu contre Macky Sall loolu sa langage amul problème ay ay damay quitté yow mënoo quitté woo xeer. yow yaa koy sañ waa beneen affaire voilà li ma doon wax moom mooy xam nga bëgg nekk président dafa am lu mu laaj siiw rek siiw. siiw nii rek sans benn prétention sax dafa am lu mu laaj. muy lan. xam nga euh, waxoon naa ko fii bi euh, Sonko commencé euh, dénoncer ni ñuy yore réew bi mm-hmm. ñu ko l'histoire est là quand même plus ou moins mm-hmm. si gën a bëri bokk man de si laa bokk mm-hmm. on l'a défendu ah donc Sonko aussi moom mooy gas génne li nit yi gisul mu teg ko gisul li mbóot ba ñu dàq la. Mhm. nga nekk victime. et sympathie boobu gars yi amoon si moom lu fait que ñu dàq ko peut-être que moo réveillé ambition politique am. Mhm. ba mu surfe si ba am tey ji siège fële ca assemblée nationale. député oui. ñu naan ba vient en mangeant mu xool ci kanam gis que ni il a la possibilité d'aller plus loin et je pense que bu ñu waxee dëgg rek ah quand même il a il a il a remué Mm-hmm. am na am na yëngal secoué la la la cocotier mm-hmm. loolu am na mm-hmm. mais li am solo mooy soo buggee jiite réew soo amee yenn ambition yi il faut nga mën a encaisser sooy joxe coup il faut nga mën ko encaisser te man pour man encaisser coup moom mooy que bu bu bu dee da nga def dara loo xam ne safaan na nga quand même accepter que ni def naa ko loolu pour man pour man boo nee dama am ambition présidentielle nga ne dama war a jël Senghor Ablaye ward ak Abdou Diouf quelle que soit métaphore boo utiliser ma fusionner leen ah pour nit bu jàng am xam-xam pour man c'est quand même c'est des mots assez graves pour wax dëgg pour man jëluma ko ni métaphore la je le je le crois beaucoup plus intelligent que jël ay fusillé ah di ko wax dans un contexte boo xam ne waxuloon woon ak xaritam dafa doon wax ak ay nit yu bëri donc sulli boom sulli mbóot mooy li ma la taala wax munoo si dara ku def politique. ku bëgg akara da ngay ñeme kaani par contre fii kenn du fi kenn ñu ne infaillible. Mhm. bu ñu foog ni Sonko Ndour ak Samba moo ci yem. c'est-à-dire que boo ñu bëggee jiite boo bëggee suñuy kar il faut ngay nangu di dog di daanu di def erreur di di jubbanti ku képp ku am prétention que pas boo munti teg lu baax la. da ngay nax sa bopp. man de pour man aujourd'hui ba ñu boo réew yi gën a mag si àddina bi ah euh, euh, kii nu mu tudd euh, Obama. Mm-hmm. bi mu bi muy bi muy def bi muy def bëgg a nekk président dafa bind livre ne mus naa tox yamba balaa ñu ko naan yamba nga nga toxoon yaa vingt ans. Mm-hmm. parce que da lay topp. Mm-hmm. yaa ma dégg bi ñu nee Clinton da nga bëgg yow da mës nga tox yamba dafa ne mu ne te waxu ko woon dafa ne tox naa ko mais mais ajuma ko. mooy ko dugal sama ah, dama mux dama muqi rek sur le plus petit mm. détail mën nga ci ñàkk dara mais li am solo ba am solo moom mooy que man j'aime bien que nit yi bu ñuy ambalewu si dara quand même soit juste quand il faut applaudir il faut mm-hmm. applaudir quand il faut diir je ne suis pas d'accord quand ku que ñu am courage wu d'accord si lenn li nga xam ne Papis wax na ko mu am solo mu am solo même bu dee c'est métaphore la boo utiliser mooy yooyu ñi fi nekkoon dañ leen war a fuser quel que soit lu mënti am tey jii nii Sonko pas bu mu teg vers Ablaye Wade man ça me pose un grand problème parce que tout simplement je sais que même bu doon métaphore la il sent que ces gens-là ont mal gouverné. Hmm. su ma xamee ne nag yow bi may joxee réew mi. tu as fait du n'importe quoi ba ma am envie même bu ma koy booy koy wax métaphore ma ma jël fetal dóor la ko c'est pas que bruit bi dafa kii rek ma daw ne la noodu loolu finalement sax kaay ñu ànd wala kaay ñu waxtaan donc il y a une contradiction dans dans dans dans ce dans dans ça. bu ba looloo introduire donc deuxième interpellation bi ci Bassirou liñ la fi interpellé bëri na. déjà damay delluwaat ci ci première interpellation bi. Mhm. ci li ñu wax ni waaw ma may ma may la lool mais très rapidement parce qu'il faut ñu ñu dem. mais mais ci laaj bi nga xam ni. bu ñu dee dem il faut que Papis ak. Euh, euh, ci posé nañ ko dix ans que finalement. bi ngeen di jéem a régler problème bi est-ce que indiwaatoo leen problème. non non da ngeen ne da ngeen di dajeekuwaat. non non même pas même pas parce que. Euh, d' abord jour conférence de presse bi. Hmm. li ñu wax bëri na pour man li ci gën a bàlleen mi ci wax bi quoi li ci gën a ñàkk fayda. Hmm. mooy déggante na ak Ablaye Wade bëgg naa ko seeti. est que xam ngeen ne jour boobu wax nañu ne am na nañu impliqué dans un détournement de 94 milliards 94 milliards. mais on dirait que intéressé wu leen. bon da dem bul wax fay fay fay je suis désolé bul wax intéressé wu leen. am na ñu ci bind. waaw effectivement. mais loolu it ba léegi. mais loolu ma dama lay expliquer rek parce que attaqué foo xam ne foofu leeral la. xam nga mënuñu e, effectivement. ñëpp a ngi naan loolu yëpp ci stratégie d'allumer un compte feu la wax nga wax ju rëy. wëlbati nga di jiiñ eh, ay nit ni détourné nañ 14 milliards au contraire au contraire ak yeneen wax yu fa génn donc tout ça c'est une c'est dans une stratégie la le dimanche octobre mm-hmm. objection ku ko dégluwaat di nga dégg fu mu doon annoncer conférence de presse bi sur ce point particulier te loolu moo jiitu li ngeen di wax ni waaw ah, mais finalement actualité dafa ñëw suul benn domaine ñu bëggoon a wax mën ko suul nag justement parce que ci actualité bu ñu taxaw di wax dina seet Abdoulaye Wade ay nangam-nangam ci la waxee lu mu annoncé woon na dina tenir conférence de presse bi hmm. que yéen ci tànn loo xam ne moo leen intéressé di ci wax. te du nag ci lu bari noonu lay fonctionné. mais juste mais ban presse. ban presse ban presse. non c'est que tamit. non non xam nga loolu mënul nekk excuse. attaque dans la. non non même pas même pas même mais il faut que mu pare. non non may ko mu eh, eh, nga jël. merci. Mhm. ce que je de dire mooy. am na lu ñu wax leneen lu bokkut ak loolu te annoncé woon na dinañ ko wax mais nit ñi taxawuñ ci loolu c'est vrai. c'est un fait. c'est pas quelque chose qui va à l'endroit de la presse parce que ñi nga xamante ne dans les réseaux sociaux nekku ñu ci presse bi. lii ngeen di wax ni ci lañ ci gën a taxaw. exactement voilà kon bu leen ko jëlee affaire de presse. li ci tegu mooy prenons par exemple exemple boobu 94 milliards kuñ ko jiiñ ne da nga ci dugg ne serait-ce que sa der ak sa deretu sa njaboot war nga dem ci fi nga xam ne doo leen benn. déglu ba baax li may wax war nga dem fi mbaxana doonee ba setal sa der fekkee ne teg nañ tuuma bu toll noonu ci yow loolu ba amee ci réew nag pendant ce la là temps yi ñaata xale lañ dàq ci école yi kenn mënul xam nu mu ñaata jigéen ñoo dee toog nañ fii ba Sénégal amuñu non non j'arrive j'arrive s'il vous plaît non maa ngi ñëw monsieur Faye monsieur euh, Faye mun nga ma baal ah? waaw foog ñu lay laaj tamit non non monsieur Faye parce que quand même non foog ñu lay laaj ngir yàlla ak yonent bi damay pousse lii non foog ñu lay laaj c'est le principe juste benn question monsieur Faye c'est-à-dire choisir entre dénoncer quelqu'un qui a volé 94 détourné 94 milliards et s'allier avec Wade pour quelqu'un qui veut qui prétend yor dëkk bi foofu laa doon ñëw ma rek c'est-à-dire xam nga ma dama ne mais sax cest à dama ne c'est-à-dire le fait que nit ki ne damay seeti Ablaye Wade màggal ko màggal dans le livre que vous avez am na ci seen livre foo leen ab Ablaye Wade également et pourtant vous décriez un système mhm. bi nga xamante ne Ablaye Wade est un mayon important ci système boobu noonu c'est-à-dire entre dénoncer nit bu sàcc 94 milliards état bi fi nekk war ko toppatoo war ko mhm. gérer parce que c'est une question que l'état mhm. la justice moo ko war a ak ak aussi oui mais c'est la justice moo war moo war moo war a autosaisir. mais entre loolu entre loolu ak ànd ak Ablaye Wade. mais malade daaw. waaw mhm. Sonko dem na seeti Ablaye Wade am na wala amul. 6 point E. oui. voilà est-ce que daaw ba léegi Pastef ak PDS ànd nañ ci benn alliance. non cest dire il faut pas danser plus vite. attends attends on n'a pas entendu. contexte ak contexte bu mu mën a doon. Sonko lu mu wax dafa leer. Papis dafa ndànk Sonko lu mu wax. fay non déglu ma par rapport à ça dama leen compléter pour nga pour nga gën a pour nga gën a asseoir sa analyse. c'est pourquoi man mën naa asseoir sama sama analyse. c'est pourquoi parce que y a un y a un détail boo xam c'est important. ma ne c'est Sonko qui l'a dit. fay dégluwul te rek waxtaan bi gën a neex. Sonko qui l'a dit en disant ceci d'air. répondu c'est en train de répondre interpellation boo xamante ne moo njëkk a suli mm. oui na déjà <coughs> que ànd nañu ak Abdoulaye Wade non du tout où est-ce que c'est dit non non j'ai jamais dit xam nga loolu am na loo xamante ne noo ko noo pas dit noo bañ bañ bañ bañ bañ mm. nga nangul ko ñaar ba ñett ñun suñu politique yëpp waxuma la opposition pouvoir sax suñu politique yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mm-hmm. quatre ans lañ ci def Ablaye Wade a fait 26 ans d'opposition. loolu mënuñu ko weddi. boo xamante ne moom la ñuy convoité di ko laaj sénégalais yi. Ablaye Wade def na ci 12 ans 12 ans. Mhm. dëgg la. Sonko 43 ans la am 2019 lay am 44 ans. Ablaye Wade war na am presque 90 ans kon magee na ko 46 ans presque le double de son âge. Mhm. na mu tuuti tuuti tuuti gis nga bu mu demee daaw seeti Ablaye Wade xam na la ko wax. entre autres conseils moytul. ndax fu ñu nekk nii sax atteindre nañ la Possègne kon sur le plan de l'expérience sur le plan de l'expérience sur le plan de l'âge bëri na loo xamante ne Sonko am na pour jàngee ko ci Ablaye léegi na quand il s'agit de question d'alliance uh-huh. loolu beneen niveau la boo xamante ne le seul fait que mu ne damay seet Ablaye mënul tax nit ñi conclure que alliance amul Charles Faye avant ngay Papis Diaw voilà c'est plus vite que la musique mm-hmm. <laughs> Charles Faye. seen musique doy waar. non non non Charles Faye. waaw que ñu gën a wàccee affaire yi. parce que d'abord waxtaan la benn. mu ngi ci langue politique. ce n'est pas un règlement de compte. vous allez devoir revoir tout ce paradigme sax. da nga ko war a xoolaat commencer. on n'est pas en opposition du dóorante ay compagnie. c'est pas c'est pas de ça qu'il s'agit c'est pas ça l'objet de l'invitation et moi je suis pas là pour ça par contre dañuy analyser point final da nga commencé par wax benn affaire qui s'est passé il y quelque temps nga ñëw gudd ko moi je me suis arrêté dans le contexte d'un discours boo xamante ne 2017 lañ ko wax ñu indi ko 2018 pourquoi parce que entre temps bu ñu analyser il y a la fulgurance et le phénomène Sonko ñu indi loolu dafa am fulgurance Sonko qu'est-ce qui a créé cette fulgurance Sonko ce n'est pas un parcours politique je suis désolé parce que il y a rien de politique ici qui peut expliquer Sonko ni professionnellement ni politiquement fonctionnaire assermenté c'est pas un fonctionnaire comme n'importe quel keneen non mhm. fonctionnaire comme magistrat policier assermenté dafa am loo xamante ne boo ko xamee mais ça ba dans la tombe les inspecteurs euh, kii lu mu tudd IG e ak ainsi ba dans la tombe da nga koy yóbbu ci ñooñu nga bokk mu am lu mu demee am lu ñu dénoncé tey en deux ans lii am donc en deux ans il y a le phénomène et la fulgurance Sonko ku ko gisul ku ko nangul yaa ngi jum mais ce n'est pas une ça veut dire vous allez faire des erreurs de jeunesse vous allez faire des erreurs de jeunesse et maintenant bu fekkente ne vous pouvez nous regarder nous dans le blanc des yeux pour vous croire supérieur à nous parce que tout simplement ngeen foog ne que yéen yaa leen bubo ay affaire yu demee noonu vous vous trompez alors c'est dit où non non parce que maa ngi lay déglu bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi lay déglu bu ngay wax sànq bu baax a baax. lan nga dégg mu wax lu mën a firi loolu. Euh, dañuy avancer dama la ne par rapport à Wade c'est un choix. Mhm. politique majeur d'un candidat à la République qui va voir koo xamante ni sénégalais yi dañ ko ne bëggatuñu la en 2012 sénégalais ils apprécieront. est-ce que c'est une bonne démarche ou une mauvaise mhm. démarche. na ñu nekk dans la langue politique il faut mu leer aussi am na ñoo langue politique fay xaaral Papis je reviens à toi Faye non je reviens à Papis Diaw Papis damay damay damay euh, euh, je sais que tu as toutes les facultés pour conduire ton analyse dama ne dama pour nga asseoir ton analyse c'est pour qu'on soit dans la profondeur et dans la cohérence j'ai jamais dit ici. qu'il y aurait une quelconque alliance entre Sonko et Wade. Je ne l'ai jamais dit. Mm. J'ai dit, il y a quelques jours, Sonko officiellement présentait son orientation politique. L'axe central, c'était le système qu'il fallait combattre. Ablaye Wade est un promoteur, entre guillemets, de ce mm. système. Un. Deuxièmement, dans les propos de Sonko que nous avons écoutés tous, dafa wax dinaa ko dem seeti am na yoo d'accord ak moom. Mm-hmm. xaw ma daañu déggoo a leneen li li ma ko fi tegal pour mu comprendre ko mhm. je n'ai pas pour euh, habitude d'être va-t-en-guerre pour figer qui que ce soit damay rappeler benn fait bu important ici sur sur cette même place mhm. sur laquelle je suis toujours depuis que Jakaarlo est là mhm. je fais partie des Sénégalais qui ont applaudi les démarches de Sonko de la même façon qu'on a accepté ça, cette liberté, mm -hmm. il faut qu'on accepte qu'il ne soit pas d'accord avec Sonko aujourd'hui, tout simplement parce que je ne comprends pas sa démarche. Pas qu'elle soit mauvaise ou bonne, mais je ne la comprends pas, cette démarche, et j'ai toute la latitude d'exprimer mon désaccord par rapport à cela. rek nga tontuwaat buuba avant may dem ci biir en fait lu ma lu ma bëggoon wax et je pense que yéen ñi mën ngeen ko seede semaine vendredi dernier rek maa ngi koy wax xam nga man si euh, président Ablaye Wade. Mm. comme ni ko fay waxee dafa jiite woon réew yi am expérience def 40 ans de mu génn ci vie politique nga dem di ko seeti pour xam mu mu xelal la ça c'est une chose mais président Ablaye Wade est un acteur actif de la politique sénégalaise ba léegi à 94 ans te dafa am dara lu am solo wax naa ko fii man dama gëm ni à 44 ans yàlla na ko yàlla may gudd fan. moi je j'ai envie de voir benn leader politique qui se prend en charge qui assume on a besoin de ça gis nga lu tax ma koy wax tey jii mii xoolal mhm. xoolal opposition bi il y a trois mois Idrissa Seck lu mu wax jot naa Karim jot naa Dayer Wade maa ngi dem seeti ko paa bi à 94 ans il est là-bas au il déroule. non xoola. waaw xoola toog këram. à ah, non xaaral à 94 ans. mu nga fële doxaa xaw ma. tëdd. il déroule. c'est-à-dire que tout le monde lui fait des yeux doux xam nga loolu lan moo ma ci jaaxal. nous nous les sénégalais dépassé nañu wax naa ko dama ko daan wax tu depuis on n'a pas rendez-vous avec le passé. Mm-hmm. il faut que suñu leader politique ñiy aspirer à diriger ce pays la il faut que ñu fàtte loolu pas bi dootul nekk ci euh, candidat élection présidentielle. bu dee doomam wala keneen moo bëgg kii na assumer jël lenge gi dëpp ngërëm man dama bëgg dama bëgg leader politique yoo xam ne dañuy def une croix bu ñu bëggee conseil ñu taal seen kii discrètement dem seeti ko mais politicien bu taxaw ne maa ngi dem seeti wàdd waxtaan ak moom c'est pas gratuit. <laughs> Birima balaa may dem ci fay mu mën a tontu il y a eu beaucoup d'interpellations quand même. moo sañoon euh, les jeunes de Pastef. ñu xam ñu boole seen seen discours humilité tuuti quoi ko muñ parce que discours dafa xaw a arrogant tuuti quand yar dafa manqué ci ci seen ci seen seen démarche c'est ça la vérité. Ah, nit may ma nit mënoon da ngay jël réew ni ku jël réew ñu tooñ la sosal la wax la fii ku bëgg a jël réew di nga déglu nekk damay la ku toog sa kër xëccoo réew man ñi ñun ñi nekk jàkkaarloo si nga xam ne dañuy chronique rek ñu ngi jeexaatal ñu door dóor si nag ni dañuy nekk ñu ministre wutu ñu yow ñu dara man fayu ma Bouba Ndour fayu ma salaire maam sama bopp maa ñëw sama bopp te ñu ma jeexaat ndax parce que xawraa si wéy jàkkaarloo da ngay bàyyi nga ne non bu continuer nii um donc birima ah. birima nga baal ma rek xam nga xam nga yaa ngi wax nii jàkkee ah. mooy li ñuy wax da ngay li nga fi wax yëpp après boo génnee bu subaa bu bu ñu ubbee kii ma mën naa dëkk tey jàkkaarloo <laughs> voilà bu fekkee sa retour bi nga bëgg a marqué nga wax ah, ko aussi léegi ma wax la leen mais bu dee bu la laalee fii lañ taxaw mais Sonko du muñ c'est ça la vérité fii lañ taxaw Diop si tudd fi ko fi turam ñu jox sur la base ni Diop si wax ñu wax sur point de mu xëy na day porte plainte bu mu doon Birima Ndiaye bi ñu tribunal dañuy yónni ay ay ay ay sommation interpellative yaa nag mu doon jotoon man jotuma ba léegi mu doon jotoon na sommation interpellative donc mënoon na nga jël réew ku la tudd nga ne koy porte plainte tudd nit ñi mhm. soo ko lu nga xamee weer nit mhm. loolu ko siiwal ci réew mi diw sàcc nga diw jël nga nangam. <laughs> pas weer nit. wax dëgg génne ko preuve. non c'est différent waaw mais du weer nit tamit non non non ah, xam nga taw télévision taw télévision may leen ko mu daaneel fay ma tontu mu am doom ak yéen yéen war a gën preuve yéen wax lu grave. parce que nit dafa nekk Sénégal di di nekk Sénégal yor ay njaboot man de su ma taxawee télévision mais damay jël réew su ma nee yow Malal Talla sàcc nga 94 milliards. preuve laa ci teg. waaw a défaut de preuve it ki ñu ko jiñ euh, porté plainte yóbbu leen ci kanamu yoon yóbbu leen ci kanamu yoon kenn xam nga mhm. kon xamoo waaj li muy def man moo tontu loolu. Mhm. xamoo ndax mi ngi constaté ay avocat xamoo ndax day porté donc mooy loolu. mais en tout cas dama jàpp ni aussi. yow boo yor réew ëllëg ëllëg Sonko bu nekkee président bu nekkee président bi bien que gëwuma ko incha allah ah, bu ko nekkoon it mooy yilif Mamour Diallo mooy yilif mhm. politique la. àdduna mën na ma Mamour Diallo ànd ak moom àdduna mën na la sama bi ñaan wax yàlla ba ma ànd ak moom mais ñaan wax yàlla donc may may gën loolu loolu loolu comme loolu dafay am booy ji nit ki da ngay ay preuve sëñ bi li ma sañ a wax tey bu mun du sañ koo wax soo comme bëgg jiite réew mi sañu koo wax wala xam na nit président de la république dégg nañ président du caaxaan dëgg la président tous les sénégalais du caaxaan. dégg nañ ko dégg nañ la Birame kon du la neex wax du la neex def. d' accord moomutoo sa bopp képp kuy candidat moomutoo sa bopp. alors candidat moomatul boppam. ça revient souvent accusation yi tamit nee na ngeen ay preuves. milliards wax ko. je je que c' pas vrai. oui je dis ici et devant vous. qu' est ce qui n' est pas vrai. que 94 ah, milliards c' est faux. Ah, mais Birima du yow lañ ko pas vrai. Ah, naa ko ah mais non bu dee dignité moo ko ëpp Sonko. c'est pas vrai. man maa ne Mamour Diallo. moo yow moo la man moo la xam-xam. waaw Birima déglu ma déglu ma Birima. moo la gën a diñ ñoom. waaw Birima Birima Birima loolu dara c'est pas vrai maa ko wax. waaw oui ma ah damay wax rek je le dis je te défie. waaw mais non gënal preuve. oui s'il te plaît waaw mais yow oui ma mais Birima mun nga mun nga xanaa may. non non non non sàcc. waaw mais yow Birima non non oui ma oui ma. moom mi taw kenn. bien sûr man nag sax lay. waaw mais Birima mais Birima moom laa faral di wax Birima bàyyi ñu wax ñun tamit Birima bàyyi ñu wax ci lañ bokk. wax leen waaw oui ber ber dafa tëjal ma micro bi. walaay mu jëg moom son micro fermé. non dama ne dama ne c'est-à-dire que dafa am lu am solo. bu leen censuré sama waa ji waay. dafa non non dafa am dafa am lu am solo. pour man non non li am solo non li am solo mooy que suñu alalu réew. képp kuñ fi jiiñ que ni yaa ko jël. ah bu dee nit bi il est bien placé pour am information génn ko ci voie place publique bi nañ ko lux mbóot bu dee moo ko jël ñu denc ko. d'accord na moom laay wax rek c'est-à-dire que. ça n'a non non c'est-à-dire que quand même il faut rendre à César ce qui appartient à César. affirmation yi nga xam ne moom la ko di def ah. nañ ko xool. oui non non mais non mais mais munoo munoo munoo waaw mais munoo jël personnaliser le débat Pierre le micro de Birima fermé. alors la parole la parole la parole est à Faye. le micro de Birima fermé. s'il te plaît mais nga génn dem loolu moom ça t'engage alors il y a eu plusieurs interpellations euh, indi ci ay leeral ak ay tontu. interpellation yi mooy d'abord assumer. par rapport ak ñun suñu choix c'est-à-dire il faut que sénégalais yi xam que les acteurs de l'opposition comme du pouvoir nekkul ay cloisonnement étanche yoo xamante ne dañuy wax ne kii nii puisque kii ci opposition bi la nekk wala ànduñu rek day day fermé c'est-à-dire waxtaan du mës a am c'est pas possible c'est pas possible dëgg la dafa am loo xamante ne dañ ko bokk muy langue politique bi gis nga suñu processus électoral yu gën a sedd yi ñu am ci concertation la jóge débouché ci ay code yoo xamante ne code consensuel ah, loolu mooy ñu may jàpp pendant temps la ci yeneen dëkk yi nga xamante ne amuñu woon processus de consensus bu waxtaan boobu ci élection lañ jaaree réew mi tàkk mhm. gis nga am na ñoo xamante ne ils sont catalogués système mais est-ce que ñu waxtaan ak ñoom bu fekkee ne ñoom sàkku nañ ko ci ñun c'est-à-dire il faut que nit ñuy xam entre la def distinction entre dem waxtaan ak nit ak ànd ak moom wala mu nekk sax ci bi ngay dem waxtaane ji volonté bi loolu la c'est-à-dire cette anticipation la sur l'objet loolu laa loolu bañ parce que kenn mënul wax ne li ñuy yekk li ñuy li li ñuy waxtaanee nii lii mooy Euh, finalité bi finalité bi. Mhm. donc xam nga fa ñu lu ñu war xaar. mais kenn mënul wax ni tam du loolu mooy finalité. mais justement moom moo war a tax nag nit ñi dal. ah ok voilà dal cest à bu demoon ba loolu am. comme li ñu assumé lu ñu def depuis le départ ba fii. Mhm. nan la ñuy toogee assumé ne lii moo xew. mais li la Papis Diaw wax ak ñeneen tamit dafa am solo. wadd mi ñu jàpp ni. Euh, avec tout le respect qu'on daal doit ah. bi ñuy dénoncé. Eh bien, <laughs> c'est l'incarnation même du système. ngeen di koy seeti Charles Faye. mais mais est-ce que xam nga juste avant ñuy jekkali dem nañu seeti dem nañu seeti Khalifa Sall. Khalifa Sall quand même. système commencé wul avec Wade. Khalifa Sall était là. avant 2000. non Charles Faye une minute rek avant ñu delluwaat ci Faye. non pour un autre s'il te plaît. moi je donne lu nekk dam koy teg dans son contexte. je désolé. c'est pas Sonko moo dem si Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade moo ñëw si Sonko. d'après lu mu wax. non lu mu wax daf ko woo. xaaral tungu ne du teew ñuy naatal fay s'il te plaît Sonko moo woo Abdoulaye Wade wala da ko woo. ban la ci non non non non non a continuer. non parce que dafa important mu leeral. moo ko woo wala wala ñoom ñoo bi Sonko dafa ne dañ ko woo non ko war ah, la wax. Ah, waxtaan na ak Ablaye non j'ai pas dit ça dama ne. il m'a appelé au téléphone. mais qui a appelé qui on sait pas. Ablaye Wade woon na ma sa matin wax nañ presque une heure ah, xam nga. non Basirou. xam nga yaa ko fi toogal yaa ñu mën a wax. mais wax na non non déglul rek mu leer. der c'est pas ça qui est important. ça veut dire que le président non xam nga am na ci solo. non kay ma wax la le contenu de leur discussion du fii lañ koy wax. par contre am na benn initiative bu ñu def. moi je m'arrête sur l'initiative mhm. c'est-à-dire boo contextualiser affaire bi il y a Sonko qui tient benn déclaration l'année dernière mu am dëkk bi lu muy kii taf taf taf ñu génnee ko semaine bi Abdoulaye Wade l'appelle après c'est ça le contexte mais pourquoi Abdoulaye Wade appelle Sonko ban erreur wala ban avantage la am mhm. mais c'est l'erreur politique de Abdoulaye Wade fii laa ko fi vendredi passé dafa juum juumul si woote gi de il s'est rendu compte le problème qu'il a avec Madické Niang la cassure frontale du PDS des militants du PDS avec tous les libéraux qui devront voter fan la ñu jëm kan la ñuy votel Karim Wade booy ñëw ñu votal yaa ngi dooral yaa ngi yaa ngi mu ngi dooral laal fu am solo c'est-à-dire Ablaye Wade. malal euh, euh, juste mhm. Ablaye Wade bu fekkoon moo nekk au pouvoir Sonko wax li mu wax mhm. Ablaye Wade du ko il aurait ces militants auraient eu le même comportement que les militants de Macky Sall loolu il faut qu'on soit clair là-dessus beneen affaire boobu mooy la communication entre wadd ak Sonko même bu fekkee Ablaye Wade moo demandeur moo def le premier pas ça met en place une passerelle entre Sonko et Abdoulaye Wade mm -hmm. et cette passerelle il faut effectivement que les militants de Macky Sall essaient de casser cette passerelle parce qu'il y a un mm-hmm. électorat bi nga xamante ne moo fi nekk buñ ne si Karim n'est pas accepté. Mhm. si la candidature de Karim n'est pas acceptée te mhm. loolu moom mooy am. si la candidature ah, de Karim n'est pas acceptée léegi effectivement c'est-à-dire am na benn électorat indécis. Mhm. waaw qui ne se retrouve pas dans Maki dans Madické. mais qui ne se retrouve pas dans tel et cetera et cetera. non j'ai pas fini donc comment Sonko fera pour capter cet électorat. alors Charles balaa ngay waxaat comme yaa yore woon parole bi rek. Ah, dama monsieur fay ci lu ma constaté man. Mm-hmm. Ah, ñi ànd ak euh, Ousmane Sonko ñëpp engagement am ak leeraayu waxam ak li muy incarné. Mm. moo tax ñu si gën a bëri parce que c'est un discours qui est tout nouveau. discours bu boobu nu mu beesee ah, xajamal ko noonu la gaawee. Mm-hmm. cest à si. benn benn jeune de 44 44 ans bu jógee fële ñëw jaxase pénal yi nii est parce que discours bi dafa truc li li posé problème bi ñu bëri mooy que maintenant le discours il faut mu dem jusqu'au bout bu commencé am ay ay yeneen affaires yoo xam ne moo ci dindi parce que le discours dafa détaché wu complètement de tout ce qui s' est passé ici au Sénégal mm. donc ah. quel que soit quelque xam lu ma xam dama ne la. pour man pour non virgule man boo taxawee non nit la gis non non mani mani boo taxawee mani boo taxawee ne nit bi ah, que ce soit métaphore wala dara bu ñu ko mënoon a fusiller dama koy fusiller ça veut dire que tu t'es détaché complètement de cette personne. Euh, euh, c'est pour cela que je dis. c'est pour cela que je dis le président Wade a fait une erreur dafa juum il s'en est rendu compte. et il appelle. ban erreur yow xalaat nga Ablaye Wade. non mais pour mais kay. Eh, mais attendez s'il vous plaît. Charles man tamit non je suis obligé non Abdoulaye Wade kay moo wax la xëy na bu man contre naa ko 2011 mu jógee fii 2012 ñii contre ko donc il n'est pas aussi bon que les gens le croient a pour Abdoulaye Wade mais cela veut pas dire que nous sommes aussi des nullards. kay moo wax leen affaire cest dire que c'est ce qui nous fait faire des erreurs dans ce pays. pays là kon Abdoulaye Wade dafa am loo xamante ne ko mais personne ça veut on ne va pas au fond des choses quand il s'agit d'analyser quand Abdoulaye Wade s'attaque directement buy attaqué noonu Madické Niang mais bien sûr de fait il y a une rupture fondamentale dans la mais yow foog non Charles je suis non il pas de ça vous n'avez rien compris l'affaire c'est quoi non l'affaire c'est quoi c'est que à partir si si hmm? si si ah man la ko bañal tout le presse nangu ko Sonko. ah son problème c'est pas kuy falu de. son problème mooy kenn du doon doom ci biir parteem kenn du fa am doole. c'est ça le problème la Abdoulaye Deme un candidat du PDS def vingt et un jours de campagne. suul suul doomam. mais il préfère quelqu'un qui n'est pas dans son parti. <laughs> sax xam yàqal dara xarit avec le PDS. waaw il faut intelligent. ah oui c'est loolu la baat bëgg. merci Birima daaneel ma jox Papis une dernière fois fay conclure deuxième partie bi jot na. Abdoulaye Wade uh-huh. ça veut dire. est-ce que il a adoubé Sonko est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Abdoulaye Wade 92 ans ou 93 ans il y a quelqu'un qui dit que de parce qu'il n'a pas dit de 1960 si su ma dëgg dëgg 2000 laa dëgg. démb ba léegi. démb ba léegi non man 2000 laa dégg de 2000. loolu la ñu mais dafa ne démb ba tey. voilà man voilà ba tey bu mu koy wax. c'est situé c'est historiquement situé mhm. loolu am na mhm. comment veux-tu que quelqu'un qui te dise que moi je te prends je te qu'il faut te fusiller pour avoir fait ça que je mhm. t'appelle pour te dire moi je t'adoube il y a fondamentalement une erreur keroog wax naa il y a aujourd'hui dans les libéraux il y a une guerre boo xamante ne dafa am maanaa boo xamante ne Wade moo ko créé si qu'est-ce qu'il va faire maintenant de tous ces libéraux qui ne savent pas fu ñu jëm kan la ñuy est-ce que les libéraux euh, février dañuy taxaw ne ñun duñu voter parce que amuñu candidat. ñoom it da foog ni électorat bu ñuy wommat la. ak mais est mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais euh, est-ce que tu penses aujourd'hui justement boo xamul foo jëm tu vas aller voter <laughs> Sonko boo xamante ni c'est pas forcément koo xamante ni moom nga àndal. allez Papis Papis tu as juste une minute parce que deuxième partie. voilà voilà doy na ñu jox moom fay mu conclure quand même. doy na une minute sax ëpp na. Mhm. dama bëgg xam ñu xam benn aspect parce que man pour man on est en train de faire deux débats en même temps entre l'interprétation politique de l'appel. exactement ak l'histoire de Sonko c'est comme ça c'est un prolongement c'est vrai que c'est lié mais. on peut les dissocier. mais gars yi euh, la gars yi ñuy ok. <laughs> Euh, euh, Ablaye Wade li mu wax ak ak ak par exemple. Mhm. boo ko décontextualisé du lu bees ci Ablaye Wade boo xoolee ay pas bi en général quand tu es jeune ngay am di jóg dans l'opposition da lay da lay day waxtaan ak yow. il l'a fait avec Malick Gakou. Mhm. bu mu jógee nekk au devant de la scène. Mhm. il l'a fait récemment avec Barthélémy Diaz. il l'a fait avec Sonko. ci deful benn erreur. Paa Abdoulaye Wade lu muy def moo ko xam. Ah benn ah aspect bu c'est c'est vrai. 2011 ah, comment il a perdu président Abdoulaye Wade perte pouvoir bi euh, non perte pouvoir il y a sept ans tout ce qu'il a construit lu mu tabax li yëpp pour xeex ak régime kii euh, Macky Sall. tu penses que si benn coup de téléphone lay jël yëpp xëpp ko Sonko je ne le pense pas. benn aspect mooy je reviens sur moi ce que je ne comprends pas en tant que Sénégalais loo xam mm. man comprendre moo ko man man daw ma ci explication politique ça peut faire l'objet mm-hmm. la suite de l'appel et tout mais ce qui est constant mooy mënuma comprendre de ça mm-hmm. mm-hmm. son ko construire lu muy proposer Sénégalais yi contre un système boo xam ne moo yàq réew mi nga ñëwaat en quelques jours nga bëgg ba pare ne xaw ma ci li ñuy déggoo alors ça pose problème man c'est là c'est parce que foofu la ñuy malheureusement jeexale. c'est-à-dire mooy li may wax Papis depuis le départ. c'est-à-dire il faut que nit ñi fàttaliku ne entre Sonko Abdoulaye Wade nekkul mur bu fa mos a am bay waaj a daanu cest dire toog bu ñu toog daaw. waxtaan pendant plus de deux heures et demie. loolu moo nekkoon le premier contact physique te pourtant Abdoulaye Wade moo ko doon sàkku. mais Sonko dem na fa. toog nañ pendant deux heures waxtaan nañu. Mm. est-ce que dégg ngeen alliance par la suite non à part front bu ñu bokk ak ñoom bokk ndoo xeex. mais mais boo léegi non non c'est la même mais mais justement mais c'est la même chose malal malal may may ma may euh, kii suñu suñu posture suñu posture en tant que gis nga li lii di ADN u Pastef mm-hmm. du changer mm. parce que xam lu tax mm. dafa am ñaar yoo xamante ne ba ñett bul ko fondé mooy ñun lu ñu gëm mooy suñu combat bii ñuy xeex nii avec tous les risques que ça comporte pour ñun te ñu assumer ko depuis le départ amuñu ci obligation de résultat c'est-à-dire nekkuñ ñoo xamante ni wax ne léegi léegi léegi nguur mi te même bu ñu amoon nguur finalité bi mooy naka la ñuy transformer qualité de vie sénégalais loolu benn la la deuxième chose mooy on n'est pas pressé mhm. man mii di wax ak yow j'ai trente trente trente trente trente huit donc am naa encore. oui 40 à 44 ans. si pour des mandats de cinq ans am nga quatre cinq mandats à faire Sonko n'est pas un homme pressé. non constitution bi da koy tere. non non non génération bi daal loolu xam naa génération mais vraiment moom la ñu waroon non présenté wu présenté wu présenté wu une fois constitution fay fay fay vraiment yow laa bëggoon terminal. non fay wuyul buuba dernière intervention bi fay ngir yàlla rek. ngir yàlla wuyu wuyu ko. baal baal baal ko jël fay déglu ko rek fay man maa lay may kay yow yaay daaneel. xoolal fay man maa la ko assuré. fay ma xam nga lu d' accord ma. ci lan il y deux semaines on parlait des partis politiques c' est très important lu mu lay wax nii. Hmm. képp ku naan leader parti politique nga. nga ne fii ak cinq euh, kii cinq élections yi di ñëw am naa chance pour jël réew mi. c'est parce que defuloo doxaloo yoonu parti politique gis nga président Sonko peut-être que dans huit ans huit ans quelqu'un d'autre ci biir parti bi va avoir d'autres ambitions en principe il faut qu'on ñu am culture biir parti politique alternance gis nga li ngeen di wax ni xaar rek un jeune qui aspire à s'attaquer ci politique am 44 ans yor parti nga ne am naa quatre élections yuy ñëw ca veut dire que amul démocratie ci parti bi parce que tout simplement ci àddina bi yëpp ci àddina bi yëpp koo fi gis ku non non non xam lu tax parce que li nga wax non xam nga li nga wax li nga wax que boo nee yàkkamtiwul non non moom laay wax ni non dama ne boo ne boo leen yàkkamtiwul xam nga président Sonko moo ñu ah à moins que nga ne ma fii ak quatre non non non mais dama ne dama ne fii ak quatre mandat non fii ak quatre élections kenn xamul non s'il te plaît s'il te plaît tu penses que ma plaît mais Birima da nga lay Birima Birima Birima non seulement yaa ngi perturbé mais li nga leen di reproché ñoom manque d'humilité. ba pare birima ba pare beneen ah, arrogance mais leen di rog li leen di rog li leen li birima non sa candidat yow ak sa candidat yow ak sa candidat yow sa candidat ngay wax dafa ko yow yow ak sa candidat la wax bañ Macky Sall nga xam dafa mais mais mais Bouba tu termines encore une fois son micro fermé mais birima booy wax dañ lay dégg non kii am na système oui ma Sonko dafa indi nee na mooy anti système non s'il te plaît kii anti birima am naa ko coupel moom son micro yeggalin ayca non dama ne dama ne dama bëggoon rek ñu leeral foofu ñun ñii ñëpp luy defar la ñu bëgg dama ne discours boobu que dans quatre quatre quatre élections lañ fi nekk loolu moom ci biir parti il faut muy am il faut muy am alternative buuba xamuloo suñu texte fay vraiment cette fois li nga wax rek justement mais li may wax li may wax dafa am lu ko lal waaw suñu texte yi boo defee deux mandats à la présidence du parti mm-hmm. pare nga ci mm-hmm. xam loolu xamoo am na solo suñu taxi yi boo nekkee président de la république mënatoo nekk président parti bi. Mhm. suñu taxi yi bu ñu paree suñu structure yi nekk président parti ça veut pas dire que yow yaay candidat bi. Mhm. dañuy def primaire. oui. ok c'est-à-dire merci beaucoup xam loolu boo ko xamul. da ngay dégg benn affaire rek. après moo tax ma laaj la li ma dégg rek laa la laaj xam ko gis nga Ousmane Sonko. waaw particularité Pastef mooy Ousmane Sonko créewul parti. Mhm. ay nit ñoo créé parti gis ay valeurs nit ne ko kaay. waaw moo tax bi ma sànq. am nañu waxuma la Ousmane Sonko am nañu li ci kanam raawi la gët. man Pastef laa lay wax li ci kanam xamuloo ko parce que mënuloo bañ a fekk yàlla de dire mooy. mu leer que voilà donc euh, ñun on a encore quand je dis on a la jeunesse lu war a mën a tax. ñu ñu ñu ñu suñu principe quoi. yi am na solo euh, jërëjëf ñu jàll très rapidement ci deuxième partie bi.